ak yi xew bitim réew. yow yaay baay bi yaa ko moom yow yaa suñu baay bi moom waaw. génne sama ndey la yow ma biiral ba pare nga ne la ko ne yow moo ma biiral la koy nangu naa la moo ma biiral la koy nangu. waaw dama bi nga doon biiral moo pare ne damay bañ bu lan loolu. yow yaay baayam laa la wax yow yaay baayam. bu ko defee dafa neexal. ci amul fu ñu jëm day taxaw yow dana yee bu mu vidéo dégg bu ma vidéo dégg. ma ne boobee. day nangu amul lu ñuy négocier ñaaw na ba pare na ñaaw rek amul lu ñuy négocier ñaaw na ba pare na ñaaw. kaa leen dugg fii kaa leen dugg fii dugguma fenn kaa leen dugg. yow yaay baay bi yaa ko yow yaa suñu baay bi moom waaw. mais baay bi eh dégg nga eh lan nga dégg eh dégg nga sama ndey la yaa ma biiral ba pare nga ne la ko ne yow foog nga ci yow tamit. bu ma ma biiral da koy nangu daal bu ma ma biiral da koy nangu. waaw dara bi nga ko yow yaay bàyyam laa la wax yow yaay bàyyam bu ko defee dafa neexal ci amul fu ñu jëm day taxawaay yow da ngay bu ma vidéo de bu ma vidéo de bu ma vidéo yow bu ma vidéo de ma ne eh day eh, eh, eh, naw eh amul lu ñuy négocier ñaaw na ba pare na ñaaw rek amul lu ñuy négocier ñaaw na ba pare na ñaaw. mais kaay la dugg fii kaay la dugg fii